lii moo neex yàlla moo war a am li war a am rek am li warta am am maa ngi koy ñaanal bu ëllëgee lenn la mu ci am rek yàlla ko ci yàlla may ndam yàlla siggil ko suturaal lii du dara làmb la rek dangay làmb tey am ëllëg doo am tey nag comme nii la demee nanu sant yàlla moom rek mooy maye. yaa booy tey lan ngay xamante ne moom moo ko daan di Lo. sa doom loolu du dara Modou Lo sama doom la ñoom sama doom sama njaboot la ñu. kenn ku ne na ngay wuti kenn koo wuti nag yàlla may la ngay sant yàlla bu wéer a wéer di sant yàlla di julli ci Seydina Mohamed di ñaanal sama doom boo léegi yàlla may ko leneen. yàlla bi nga gëm yàlla moom. yaay ji gëm yàlla lañ fi fekk. waaw si moom it ko mu nekk moo dogalee kii rek xoolee euh, Boy ki nga xamante ni moom te yàlla daf ko mayoon ndam kon tey bu yàlla xañee ndam ni rek nañu santaat yàlla xam ni yàlla moo dogalee noonu lu koy masawu bu baax a baax comme ah, si ñu ngi lay ñu ngi wax ni yàlla moo dogalee nii te am nañu yaakaar que ni jëppoon ko nii nañu ngi si jaww ñu sant yàlla gis yaa ngi doon nekk yi ak lépp li nga la rek ndax booy ñaar xale la boo xamante ne xamul dara kon tey bu demee nii dañuy sant yàlla rek ndax ku dul may sa bopp lu la yàlla may nga jël te doomu wàlliw la sëtu wàlliw la kon gëm yàlla dafa nekk ci moom kon dara waru ko jaaxal ndeysaan soxna si gis na moom mi nga xamante ni moom mooy jabaru Boy Niang moom sax moom mooy moom mooy encouragé ñi di leen dalal gis ngeen ko moom mooy dalal nit ñi donte sax affaire yi métti na donte affaire yi gis na mais teewul gis na mu ngi dalal nit ñi mu ngi mu ngi dalal nit ñi dalal dalal yàlla parce que premier janvier bi passé ñoo fi nekkoon di fecc donc tey bu yàlla dogalee lii dañuy sant yàlla rek gën a encouragé suñu mbër mu takkaat jaaj yi gën cee nekk xam tey lañ ko gën a jom mais maanaam dañoo rafetlu ni nga doxalee quoi ci la fekk ci la fekk tey nit ñi di jooy yow mi nga xam ne yaa ko gën a jege ndax yaay soxnaam nga ñëw di di waxtaan ak ñoom di leen dalal di leen delloo si waat yàlla xam ne yàlla moom mooy dogal lool la ñu rafetlu moo tax tey ñu dékk suñu micro yi. waaw dañuy dafa ragal image. mais ragal image yi. ndax boobu léegi mu ngi defal gaañi. tamit il li nga xamante ni yaboo ween nga ko def na ko mooy wane na fit wane na jom wane na jàmbaar yàlla nag mooy dogal te nii la dogalee woon kon dañu koy encouragé waat bu baax waaw suñu yaay ji ku gëm yàlla la ndax boo waxee dëgg la ndeysaan moom ngeen yuuxu wala dara dëgg la ku gëm yàlla ndeysaan Aïcha on continue l'ambiance c'est Boy Niang après sa défaite euh, bi nga xam ne moom la am euh, face à donc nag muy défaite boo xam ne euh, waa këram wax dëgg yàlla tenir nañ ci compte xëy na metti na xëy na metti na ci ñoom waaye ñu ngi tenir le coup oh. mooy tey mu génnoon fii nga xamante ne moom ci kër gi bi muy dem ñu ne ko boo demee waneel fit. ñii doon seetaan gisuñu ko kañ la doon métti mooy bi muy génn fii bi muy dem ñu ne ko boo demee waneel jàmbar ñii di seetaan gisuñu ko ci moom kon bu boobaa tey buy ñëw fii walaay day sëgg wala boog mun na fi bañ a jaar ba ñit ñi ñibbi mais tey bu ñëwee fii ak li nga xamante ni defet bi demee na noonu mën na sigi te xam ni def na li nga xamante ni moom lañ ko yebee woon yàlla nag mooy mayee yàlla mooy mayee gis ngeen soxna si li mu wax nee na daaw moom la ñu mayoon li nga xamante moom mooy ndam bi kon tey bu ko ko xañee yàlla moo programmé mooy mooy waaw ñu ñëwee yéen nga xamante yéen ñu topp ci sunu live yi waaw ah, vous êtes en direct sur Univers Info ak Wallian TV Wallian TV bi Pro Média xam ngeen nii rek lañ leen koy defalee nii rek lañ leen koy defalee lépp loo xamante ni actualité la lépp loo xamante ni xew-xew la lépp loo xamante ni waaw information la nee na leen koy toppalee du début à la fin ta ta ta aussi jëlaloon nañ leen ko gis ngeen tey bii nga xamante ne moom moo nekk jour ji depuis ce matin ñu ngi woon fii diggante fii ba ci parcelle parce que am nañu ay correspondant yoo xamante ne ñoom ñoo ñu toogal parcelle kon dañ koo def 50 50 pour ñi nga xamante ne ñoom ñooy sénégalais yi ñu mën a dund tey couverture bés bi ci 50 50 à ce que tey gis ngeen li nga xamante ni def nañ ko comme couverture fii ci biir. muy noonu toujours Cheikh Boy sur Waliyane TV ginnaaw euh, défaite bi nga xam ne jot na ko am gis ngeen réaction wi euh, yaay e ji seeni sœur ak ñu mel noonu ñu war leen lépp comme niñ ko euh, bëggee woon ak yéen toujours donc duñ def lu dul xaar ak yéen toujours Boy Niang bu ñëwee rek ñu daal leen di wan euh, quelle est sa première réaction nan la Boy ñaa jëlee yi fii naka la dundee combat bi naka lay dundee défaite bi ci ñi nga xam ne ñoo di waa Pikine c'est vrai Boy Niang gis ko woon bi muy ngemb fii mais tey euh, quand même xaar nañu ko fii rien que pour xam ndax fi lay génnee ak naka lay génnee malheureusement il a perdu le combat donc nag euh, une défaite dure boo xam ne moo ko gàllankoor jamono jële mais terewul nag yàlla moo dogal loolu ba tey ñuy dund moo am fii donte sax yàlla dafa def li nga xamante ni moo gën ci ci ci Boy Niang yàlla dafa def mën na daan Boy Niang ñu ñu ñoom ñoom nangu fa nag santaat yàlla yàgg na leen may ndam. kon tey bu leen xañee ñoom sant nañu ko ci bu baax ci ni nga xamante ne noonu la dogalee mais gis ngeen leen ñii ñëpp toog waaw tiis lu ko lool ñii ñëpp toog bañ a wax mu sëngeem mais ak lu ci ma tam gis ngeen ko ndeysaan mu nekk lu lu métti ndax tamit bi mu fiy génn bi mu fiy jógee di dem ñoom amuñu woon yaakaar que ni tey nii lay deme mais nag yàlla mooy mooy mooy dogal te noonu la dogalee ñoom sant nañu ko bu baax gërëm nañu yàlla te xam ne nii la nii la nii la ah, mais ba tey ñu koy dund dañuy xaar ki nga xamante ni moom mooy moom mooy Boy Niang léegi bu ñëwee rek incha allah ngeen gis ñi nga xamante ni noonu la nar a dugg see fii ci kër gi te am nañu yaakaar tamit fi dugg see du du du sëkk am nañu yaakaar ci loolu bu baax ndax tamit li nga xamante ne moom la koy rey woon fekk na ko def na ko mooy wane na jàmbaar wane na ko ni yàlla nag moo na ko nii nii ñoom it nangu nañu ko kon man tey dañuy sant yàlla rek sant yàlla waaw léegi rek mooy ñaan yooyu léegi rek mu jël ko en exclusivité waaw ngeen gis première réaction am d'après défaite bi te sax xam na nañu ni dina ko nangu te ndax boo xoolee yaay ji ni nga xamante noonu la waxee bu ngeen dégloo soxnaam si ni nga xamante noonu la waxee ñoom ñëpp sant nañu yàlla waaw dégg nga sax bu bu soxna si nee na ni ki daaw le premier janvier digganteem moom ak euh, Balla gay yàlla da koo mayoon ndam kon tey bu ko yàlla xañee tamit lu dul nangu xam ni yàlla moo dogalee nii rek du leen war waaw bu fekkee nii dinañ lu mën a wàññil tuuti télé bi dinañ lu gënal remercier leen